Waouh, waouh, waouh, wow. quatrième combat Quatrième combat de la soirée Quatrième combat de la soirée, Guigui 3 Boudarou Gamzabop Face à Urgence Urgence pour Malika Urgence pour Malika face à Guigui Guigui 3, Boudarou Gamzabop pour Tenguet Face à Urgence pour Malika boobu quatrième combat de la soirée dès le samedi 24 décembre 2021 il y à l'arène nationale le promoteur Babacar Sagna à la tête de la structure à la tête de la structure Yaramar moo organisé Bakary Sagna à la tête de la structure Yaramar production Moi organisé ñu le quatrième combat de la soirée. dana génn seen diggante quatrième combat de la soirée quatrième combat la soirée urgence Koumalika moo ngi moo ngi moo ngi moo ngi bul xonk moo tent bopp bi bu xonk face à qui attention urgence na ci kawam urgence dox na ci kawam léegi doomu ndey teg soog moom ngay am noonu face à Gouye Gui 3 face à Gouye Waouh, waouh, waaw face à guy gi 3 bu comme ça, sa face à urgence guy 3 face à urgence 24 attention Brigitte gi la na droite waouh, attention On va ci kaw jëli de urgence guy gi waaw waaw guy gi face à urgence attention attention guy passe face à urgence attention Kalinoko na ko guy à urgence

waaw waaw waaw waaw attention dugal na ko ku ku bu dal attention jëli na ko attention attention et sant ku dóoral ma dóor urgence pasa guy gi urgence pasa guy gi boobu attention jëli na ko moom mooy quatrième combat de la soirée sama gars yi comme ni ma leen ko waxee tey le samedi 24 décembre 2022 ñu ngi arène nationale le promoteur Bakary de la structure yaram ak organisation Omar Sall borom OST bi ñëw urgence aca aca attention jëli na ko oh daan na ko guy gi daan na ko guy gi urgence ndeysaan urgence guy gi daan na ko guy gi bu daanu gëm sa bopp daan na ko daan na urgence ndeysaan kër Kulum Faye Kulum Faye dem na jëli poulet wam urgence na ba dee waaye daanu na bëre na ba dee waaye daanu na ndeysaan urgence daanu na urgence daanu na guy gi bu daanu gëm sa bopp daan na ko waaw waaw boobu nekkoon quatrième combat de la soirée quatrième tënk la soirée mi ngi noonu guy gi bu daanu gëm sa daan na urgence waaw waaw combat jeex na ndeysaan guy gi dem na ci euh, guy gi dem na ci gàmmu gay guy gi dem na ci gàmmu gay ñoo bokk seen tëngeej guy gi dem na ci gàmmu gay ñoo bokk seen tëngeej waaw waaw waaw waaw ndeysaan mi ngi noonu lamb ji jeex na quatrième combat la soirée quatrième vainqueur la soirée mi ngi noonu guy gi bu daanu gëm sa bopp daan na Urgence bu Malika